asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki téléspectateur rajo télévision bu Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di tàmbalee nuyoo beeg ziyaar bi ci xalifa yu tedd yi nga xam ne ñoo toog ci bopp këru diine yi di ziyaare imaam yi di ziyaare borom xam-xam yi waaye di ndokkeel ak a ñaanal njiitu réew mu bees mi nga xam ne moom la yalla subhanahu wa taala tanal askanu Sénégal muy son excellence président Bachir Diomaye ak mboolem gouvernement am di nuyu suñu directeur général Alaaji Racine Talla ak mboolem directeur bo xamné yaangi ci soufam ak mboolem agent bo xamné yaangi ci kër gi ci RTS dina saka notti ngir luy jëmale Sénégal kanam rawatina kër gi di RTS di santar yalla bu baakha baakha baakha baax di nuyu diaspora bi yep ak mbollem ko xam yaangi safo emission wu waré fu julit euh ngeen koy tewlu si ay bis bu nek ma si andak sama consultant sen consultant sama wéttal docteur mohammed nyang ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ko tawfiq te sam ko te xam-xamam di ziyara ñep waye di len ndokelat si euh, korite gi nga xamne gennenañ si bu yagut di ñaan yàlla mu indilaat ñu ko ay at yu bare bare bare bare di ñaanalaat tamit suñu mbokk mi nga xam ne moom la ñu indiwaat te mu àndoo ñu ñun si émission bi passé wàllu xam bi yeeg lam sa wax mu nekk lu jëriñ lool wax dëgg yàlla doomi aadama yi safoon nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax te xam nañu ne gis nañ njëriñ muy Cheikh Ibrahima Guèye ba tey bàyyeeguñ ko ndax askan wi ñoom ñoo koy laajaat si ay tomb yu bari xam ngeen ne réew mi dafa am lu mu baaxoo di dégg am lu mu baaxoo xam waaye am lu mu baaxoo fekk fi te maam yeeg baay yeeg ndey yeeg ñëpp doon ko wax guddeeg bëccëg moo tax ba léegi mun ñu ko bàyyi ndax wax dëgg yàlla si lay yëngatu guddeeg bëccëg di jàppale nit ñi si li nga xam ne nii moom la ñuy soxla ngir seen aajo di faju à travers l'islam bi nga xam ne moom lay woote woo waaye moom lay dund di nuyu suñu imaam Omar Touré mi nga xam ne moo ñu dalal fii si jàkka ji fan ok di nuyu bilal yeeg jullikat yeeg ñëpp ak mbokk yi nga xam ne ñoo yeewoo fii fi nga xam ne mooy fi jàkka ji nekk te mu nekk jàkka joo xam ne macha allah taala ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu sàmm leen te defal leen tawfiq mbokk yi tey dañoo ñëwaat jëlaat suñu mbokk mi Ibrahim mu war ñoo jàngatal beneen tomb boo xam ne askan da ko soxla muy cat baat boobu ñu bare bare bari bari dégg nañ ko xale yi xam nañ ko mag ñi xam nañ ko góor ñi xam nañ ko jigéen ñi xam nañ ko cat moomu mooy lan cat tamit ban effet la am ci doomi aadama cat moomu tamit yan gàllankoor la mën a indil nit waaye cat naka lañ koy faje naka la ñuy fexe ba góor góorlu ak xam-xam bi nga xam ne ni lislaam moo ko fi indi ba nit ki tàggook li nga xam ne ni moom mooy cat yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ne cat bu doon xëccoog dogalub yàlla subhaanahu wa taala bu fekkoon ne dogalub yàlla bi am na lu koy xëccoo ci ci jaam bi cat lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa nee na cat dina dugal giléem si cin te fekk waru fa woon a dugg mooy day rey day rey nit rek li mu bëgg a wax mooy day reye kon cat moomu war nañoo xam mooy lan waaye war na ñoo xam naka lañuy fexe ñun ba buñ koy dund tamit te yaakaar naa nit kuy dund ak lu mën a doon ñàkkoo li nga xam ne nii moom mooy cat kon cat moom moo taxoon ñu indiwaat suñu mbokk mi Cheikh Ibrahim moo ne ko jàngatal incha allahu taala di ñaan rek li ñuy ñaan ñëpp mooy ñuy xeerawlu ku mën a enregistré enregistré waaye ku mën a bind di bind ndax cëppaandawu émission bi mu nekk njëriñ ngir Sénégal waaye njariñ ngir ñi nga xam ne ni ñoom ñooy topp émission bi di wareefu jullit Cheikh Mouhamed salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu imaam Mouhamed al Moustapha ñu ngi lay fay nuyoo di sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nuyu képp koo xam ne mi ngi ñuy topp ci émission bi nga xam ne mooy wareefu jullit di jiital ci nuyoo yi ñi nga xamante ni ñoom la yàlla subhanahu wa taala jiital ci réew mi mm-hmm. njiitu réew mi ak ña muy ak ak euh, premier ministre ak ña mu nekk ak ñoom ñëpp rek ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñu gouverner ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa euh, diine yi xali xula xulafaaw yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di ziyaare te gi nekk nii muy RTS ak képp koo xam ne yaa ngi fiy liggéeyee ak képp koo xam ne rek émission bi yaa ngi koy topp ak foo mën a nekk di leen nuyuwaat yow it imam di nuyuwaat suñu gan gi xam naa ni sonal nañ ko bu ngeen seetloo bii mooy suma juumul ñeenteelu jotaay woo xam ne yu toftaloo mi ngi ñëw li ko waral nag lenn la mooy ni thème yi nga xam ne ci lañ koy woo dafa duggante bëgguñ am loo xam ne moo koy séparé dañu bëgg la ki nga xam ne mooy seetaan mën a topp yépp benn par benn bu defee bu génnee ci thème yi nga xam ne ñu ngi ciy invité oustaz Ibrahim mii mu mën a xam lii yépp lan la bu dul loolu rek bu fekkee ne soree na rek dina am lu ko réer te bu fekkee ne am na lu ko manqué ñu indiwaat ko mu leeralaat yi nga xam ne kii seetaan mi ngi ko doon laaj rek boobaa da nga gis ni day mën a jëriñu lool loolu moo tax tey ñu indiwaat ko ci beneen thème xam ne woo am solo la mooy ni lan mooy cat cat bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko ñu koy dégg di ko wax loolu lañ bëgg tey mu waxtaanal ñu ci lépp lekk ñu delloo ko ci diinal islaam yi ngir ni loolu moo tax ñu toog fi lépp loo xam ne ñi wax rek dañuy def cëslaay bi muy nii njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak borom xam-xam yi li nga xamante ni lañ fi bàyyi te loolu yëpp leeral njàngalem yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kon imaam suñ gën a ngi noonu di la kàddu gi di dalal moom di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ko tawfiq fekk la ñam leeral dënnam jërëjëf docteur Mouhamed Cheikh Ibrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi noo ngi lay nuyu imaam ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. noo ngi lay nuyu di nuyu waa RTS biir réew mi ak bitim réew. di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ci réew mi. di am mbégte ci dellusiwaat ci jotaay yu mel nii di waxtaane thème yu mel nii yooyu ñun dañ ci sawar ndax sunu. sunu sunu sunu souhait bi gën a rëy maanaam li ñu gën a bëgg ba dañu bokk doomi aadama yi am jàmm ci anam bu nekk lépp loo xam ne soxal na nit ñi te mu nekk préoccupation doomi aadama yi nit ñi di ay jafe en en travers loolu am ñu siy profité surtout nag maanaam doomi aadama yi dañuy am jafe-jafe yu mel nii pare am ñuy profité si jafe-jafe yi yooyu bu ñu amee occasion yu ñu mën a leerale nit ñi jox leen ay orientation jox leen ay tegtal ngir doomi aadama yi mën a gindeekuwaat teguwaat ci aw yoon koku ñun inshallah allah bu ñu wéccu yu mel non dañ ci ñew inshallah allah. allah Cheikh mohammed suñu gan gi ñaata tomb lañ ko mom dañ ñu ko waajaloon juroomi tomb. Mhm. tomb bu ci njëkk moy mu wax ñu lañ moy chat mhm. lo am la wala amul mu wax ñu lan la. Mhm. bu ca joggé xaju chat ndax ben xaaj la ñaar la ñett la gën nañ mu wax ñuko benen beneen moy ni loranga yi nga xam chat cat mën na koo def. yan loranga la. ñentelu tomb ba moy ni nit ki naka lay def ba ar bopam ci chat suñ jógee ci loolu tomb bu mujj bi mu war a waxtaane naka la ñuy fajee cat mhm, kon yii mooy tomb yi nga xam ne mhm. thème bi tey ci la war a euh, cëslaay macha allah Cheikh Ibrahim kon première tomb bi lan mooy cat <laughs> lan mooy cat laaj nga lu garaaw laaj nga loo xam ne moo gën a garaaw sax njabar moom cat waaw cat moo gën a garaaw maanaam ñu njabar la moo gën a moyen garaaw moo gën a euh, moyen danger ñu catu la catu moo gën a moo ko gën a garaaw sëñ bi looy njabar yi raye bariwut wut way amna nak. njabar waaw yi raye bariwut waaw bari bariwul nit kuy genn aduna fekk ne njabar moko ko jàpp day am way bari bariwul waye li ëpp li ci li ngi faatu chat da di faat manam Chat day raye lol sa wax ja sank wax nga wax ji sànq mhm. yenen tibbi alayhi salatu salaam ci benen hadith bu gëna leer mhm. nee akthar ma yamutu min ummati wala akthar man yamutu min ummati baada qadaa ilah wa baada qadaa ilah wa qadar yamutuuna bil ayn yonent bi saa sam nee na li ëpp ci liy faatu ci xeet bi xoolal li ëpp ci liy faatu ci xeet bi nee na cat moo leen di rey hmm? waaw cat moo leen di rey kon li tax ma ne la laaj nga lu garaaw mooy cat lu yéeme la lu doy waar la lu jar a ragal la ki kay ñeme mooy ki xamut moom cat waaw léegi nag lan mooy cat cat benn tooke la tooke la buy dund ci yaramu doomu aadama de mën de maanaam tooke la buy duggee nit day duggee day jàppe luy jàppaate la man na jàpp nit jëmmi doomi aadama mën na jàpp kër mën na jàpp oto mën na jàpp euh, matériel mhm. téléphone maanaam lu nekk cat mën na ko attaqué indil ko ay jafeñ-jafeñ indil ko ay problème maanaam ni mu mën a jàppe oto nga xam ne saa yoo ci yéegee mu paan Mhm. moom cat noonu la mën a jàppe doomi aadama wàññi ay capacité ci wàllum xam-xam ci wàllum xalaat ci wàllum lépp cat tooke la buy dund ci aw yaram boo xam ne day circuler ci kaw ba ci suuf su la jàppee mën na la indil ay jafeñ-jafeñ ba attaqué li nga xam ne mooy sa sidit yi mhm. yow doo fonctionné te bu ñu la yóbbee hôpital duñ xam lan moo la daal mën na jàpp lenn ci sa cër mën na jàpp sa liggéey mën na bañ attaque yaram bi mais mu attaque business bi liggéey bi liggéey bi di dellu ginnaaw. di yàqu rek di yàqu mën nga yaakaar ne dañ laa liggéey fekk dañ laa catu te la plupart bëri na ci nit ñoo xam ne cat moo leen di jàpp ñuy échec di am ay gàllankoor di dellu ginnaaw xoolal ñu yaakaar ne dañ leen a liggéey dañ leen a njabar boo ko defee ñu topp rek naan dañ ma liggéey dañ maa liggéey fekk moom dañ kaa catu. cat fa lee jógee. day jóge ci bët di jóge ci làmmiñ di jóge ci xol bi ci gën a garaaw mooy biy jóge biy jóge biy jóge ci xol hmm? waaw kon cat ci tënk bu ñu ko doon misaal dañu naan benn dangaar la benn tooke la buy bàyyikoo ci doomu aadama immaa ci ay bëtam mbaa ci làmmiñam mbaa ci xolam jëm ci doomu aadama man koo jàpp man koo indil ay jafe-jafe nga xam ne jëkkër dina catu jabar jabar catu jëkkër yaay dina catu doom doom dina catu yaay xarit dina catu xarit moroom xaritam ku la xamut xam xamoo ko xamula di nga ko romb muy mu catu la man na bàyyi ko fu nekk jëm ci yow. imaam mu jóge si bët bi. imaam bàyyi ko ci bët bi. wa imaam mu mu wax ko bàyyi ko ci làmmiñ wi. imaam mu bàyyi ko ci ci xol bi bi ci gën a danger mooy bi bàyyi ci xol parce que boobu moo am rapport ak iñaan ak soxor. kon soxor cat la. Euh, maanaam. ñoo jàkkaarloo waaye du këpp ku la ku iñaane mën na laa catu ki la iñaane ba noppi di la ko xoolee mbaam mu koy wax boobu moo nekk danger mais nit ki bu la iñaanee rek deful benn effort ci iñaan gi rek moom dalaa iñaane waaye du la ko waaye moom du la gis xëy na nekku leen benn environnement bu ngeen dundee wala wala wala wala wala wala du toog di ko waxtaanee kooku iñaan gi mu la iñaane boppam boppam lay lor mooy iñaan gi da koy lekk muy am ay problème mais iñaan bi garaaw mooy nga nekk ak nit mu iñaane la moo xam benn kër bu ngeen di dund moo xam bërëb bu ngeen di liggéeyee moo xam quartier bu ngeen dëkk moom dalaa iñaane yéene wula xéewal yi nga xam ne yaa ngi ci mu la koy xoolee ci ay bëtam wala mu koy tudd ci làmmiñam te ku ne xam nga bët dafa am rapport ak li nga xam ne mooy mooy xol tàng tàngooru iñaan bi nekk ci xol bi di ko lakk moom mi nga xam ne moo la iñaane noonu la mbir mën a génnee jaar say bët yow lor la moo benn borom xam ne loolu moo gën a garaaw fit flèche tiimal la benn fit nii dóor la ko nee na loolu moo ko gën a woyof nit ki daal di lay catu cat boo xamante ni ci xol bala tàmbali ko jëm ci yow. allahu akbar ah docteur man de ba léegi comprendre ma la mooy cat. waaw ah, maam de lu garaaw la moo tax cheikh bi bi nga ko laajee. Mhm. balaa muy toon daf la ree. Mhm. ne laaj nga lu garaaw. <laughs> lu garaaw génn yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñu ko bàyyiloo xel. Mhm. suñu yaay Aïcha radiyallahu anha. da daa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ni del muslu. wala di mocculu ci cat. del muslu wala mocculu. del mocculu ci cat. Mhm. loolu mocculu googu mooy ni dinañ ci ñëw mooy naka la nit ki aaree boppam. Mhm. loo xam ne da koy wax ba cat mu du la dal. Mhm. cat googu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoon na. ndax wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa génn ànd ak ay saxaabaam. sallallahu mu àndoon benn waay ju ñuy wax sahlum nu xunayf. demoon ci barab bu ñuy wax Juhfata Sahl waxoon nañ ni ku taaru woon la yaram yi boo ko gisee ci léegi mën nga wax ni dafa xees pecc ndax weex moom boo ko waxee duñ ko dégg mën nga wax ni dafa xees pecc mais ni mu simmee koo di sangu benn waay xool ko ku ñuy wax amirum nu rabiata ni mu ko xoolee ca topp ko bi sahaaba yi ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wax ko mu ndax da ngeen am ku ngeen ni tuumaal wala am ngeen ko ngeen yaakaar ni moo ko xool uhuh. ñu ne ko diw da lañ yaakaar yonent leen tetteel ne def leen nangam ak nangam biñ ko defee loolu daal di dañ loo cay déggee am na alquran suñu borom mi ngi ñuy wax ni wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lamma samicu dikra wa yaquluuna innahu la majnun wa ma huwa illa dicrun lil alamin yonente bi salaa sallam sikki sàkk amul ni ku yàlla bindi moo la gën a rafet sallallahu alayhi wa sallam ñu amoon benn waay joo xam ne dañuy wax ni moom ku mu xool catu la ñu dent ko ñett fan yoo xam ne lekkul moom waa ji moom waa ji pour bu xoolee yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu jàpp ko la ilaha illallah loolu borom xam-xam nañ lu mel noonu yàlla yónni jibril mu jox ko ñaan kon nga déggee ci ne cat lu garaaw la ñun nii mën nañoo booloo ne diw lañ bëgg a catu dem xool ko loolu mun na koo dal loolu moo tax yonent yàlla yaqub ci suratu yusuf bi muy wax naan ni bi yàlla di nettali yaa baniya laa tadxulu min baabin wahidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa borom xam-xam yi dañoo tudd ne li taxoon moom yaquba alayhi salaam waxoon ay doomam ne leen bu ngeen ñëwee ci dëkk bi mhm. bu leen duggee benn bunt dëkk bi ay frontière la nii ñii nañ jaar fii ñii jaar fii mhm. li karool mooy ni fukki doom ak benn la amoon mhm. wala ñoom fukki doom fukk fukk la ñu woon ak benn yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk papa te dañoo taaru woon lool mu bañ buñ duggee ci dëkk bi duggandoo ñu gis leen cetu leen loolu topp leen moo tax moo leen bu leen duggandoo bu fekkee ne yeneen yi dañuy doon bàyyiloo nit ñi xel ci cat mhm. kon lu garaaw la allahu akbar moo ko ci xadis bi yéen bi sallam di wax ni cat mhm. day dugal nit ki bàmmeel mhm. te mën na dugal gileem ci cin gileem ni mu toll kenn mënu ko dugal ci cin man mosuma gis cin woo xam ne man na ray gileem dugal ci lépp li yent bi sallallahu alaihi wasallam wax moy ni gilem nit ki mën nako xol ba ciatu ko mu dem ba gëna tuuti xar ñu mën ko duggal ci biir loolu sax na ci jamono yent bi sallallahu alaihi wasallam kon ni ciat lu garaw la mhm. wax nako day juggé ci lamiñ mhm. day juggé ci bet ci bet mhm. day juggé ci xol té loolu añaan mo koy waral ndax borom xam-xam yi tudd nañ ko amna lu mu ci jot a wax euh, donte borom xam-xam léeg dañuy wax li wax léeg euh, ñi dañuy wax li ñi wax lale mais li sax mom moy ni añaan bokkut ak ciat mais ñom ñaara bokku ndé ak bay bokk bokkut ak cat mais ñoom ñaar bokku ndey ak bay ndax ki ngay añaane mhm. li mu am yow yaa ngi koy wax te ñaanaloo ko loolu sax mhm. ñàkk gi nga koy ñàkk ñaanal loolu sax nga koy mhm. bàyyiloo xel chaque jour di ko tudd sa wala di ko fas sa loolu mën na ko waral cat dal ko moom moo tax ni cat lu jar a bàyyi xel la moo tax nit ki war na xam lan mooy cat ak lan moo koy aar ci cat mais Cheikh Ibrahima cat est-ce ñëpp la mën a dal waaw ñëpp la mën a ku ñaaw du ko dal ñëpp la mën ku lan ku ñaaw <laughs> ku ñaaw yàlla mën na koo xañ ñaaw jox ko yeneen i xéewal ki mën ngaa ñaaw mën a jàng mm-hmm. mën a jàng ñu catu ci sa man a jàng bi ok nit ki mën am xaalis mën ngaa ñaaw am xaalis ñu catu la am xaalis bi mm-hmm. mën ngaa ñaaw sol yëre yu rafet ñu catu la sa yëre yu rafet ni maanaam cat mën na laa dal ci ci maanaam ci lu man a ne mën na seen seen cat mën nañ laa cat moom ñëpp la mën a dal ñëpp la mën a dal ci lu nekk it nag lañ la mën a catoo ci lu nekk lañ la mën a lañ la mën a catoo mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw léegi danger bi waaw danger bi moom li mu mën a indi cat man na jàpp nit muy fàtte mën na jàpp nit ay capacité am wàññeeku mm-hmm. cat mën na jàpp nit bu tëddee du jóg mën na jàpp nit provoqué ci moom ay feebar yu chronique yoo xam ne nekkul ci yow mën na jàpp nit muy jeex tout le temps di jeex maanaam bu ma sa am yaram du doon nit ku rëy day jeex rek da wàññeeku mën na jàpp sëy mu tas te la plupart sëy yu baree baree baree baree bëri hmm. day am jafe-jafe fekk cat moom moom moo ci nekk hmm. ma jox la misaal léegi-léeg nga gis jigéen joo xam ne dañ koy maye mu war a xew daal di jël luy tolloog téeméeri mbubb ñaw ko teg hmm. ak ñu fee waaw day jël téeméeri mbubb ñaw ko teg organiser xew moo xam ne ñëppay ñëw ñu ko bëgg ak ñu ko bañ. ak téeméeri dàll. waaw daal moom bañ jëlee téeméeri daal téeméeri saak. <laughs> yaa ngi dégg. Hmm. daal di organiser xew moo xam ne. Hmm. ñi ci ñëw yëpp man ta waat yëkkati loo xam ne ñi ci ñëw yëpp da dañ koo bëgg hmm. ñemoo ko waat am na ñi ci ñëw ñoo xam ne bëgg nañ ko am ñoo xam ne bëgguñu ko mu dajale doomi aadama yi ci biir këram bu huit ci suba jotee mu sol benn yére daal di défilé ci biir mbooloo mi mbooloo mi ku ne def sa commentaire. Mhm. ku ne xool. Mhm. ku ne yëg la nga yëg sa xol. Mhm. ñay kontaan kontaan. ñay mer mer ña koy jéppi jéppi ko. ña koy soxore soxore ko ña koy iñaane iñaane ko ña ko cay félicité félicité ko. huit heures et demi mu daal di duggaat si meeku loolu solaat. beneen bu gën a garaaw beneen bu gën a bu soloon. génnaat defaat défilé googu. huit heures et demi huit heures quarante nangam mu duggaat. soppiwaat loolu solaat. daa ngi dégg ñiy photo di photo mhm. léegi mbooloo mi nga xam ne ñoo toog di ko xool directement ak seen bët ñii di commenter directement ak seen i lammeñ yaa ngi dégg ñii di ko ko yéene ci seeni i xol lan koy yéene mhm. bokk ak photo yeeg ñay estateeg nangam sangam sinab yeeg sinab yeeg ñay estaté nga xam ne cinq cent personnes mën nañoo nekk gum di waxal ci moom ci même temps bi ci même jamono ji loolu <laughs> loolu xale yu jigéen yi ñi koy def lim mhm. leen mën a gàllankoor ci sëy bi ñuy sëy kenn xamu nu mu moo tax nga sëy yoo xamante ne nii dañuy maanaam fi ñu ko xewee ak fi problème yi tàmbalee ci sëy bi rek kenn xamul maanaam doo xam sax lu ko waral mm-hmm. bu ko defee nga nekk sa jëkkër xol bi di bon muy mer mm-hmm. yow ngay naqar yi xol bi di naqar yi ngeen ñàkk déggoo am seen diggante du yàgg mu tas wala même bu tasul sax loolu mën na bloqué wàllum njaboot léegi gis couple yoo xam ne fu ne la ñuy dugg ngir am doom duñu am doom fekk cat moo leen jàppoon ca tàmbalik li nga xam ne mooy mooy yenoon bi alayhi salaatu salaam dafa dugg ci benn kër xadis bi mu ngi ci saxibu albani yi dana dafa dugg ci benn kër fekk gone goo xam ne day jooy lu ñuy tere xale bu wex mm-hmm. muy jooy ji jooy jooy yu kenn mëntu koo nax boo yëkkatee boot tëral yaay wi jox jox euh, ween wi lu ne dugg na ci mm-hmm. xale bi noppiwut yonent bi daal di ñëw ñu leen ci hee eh, ma seen doom jii ngeen dem mocc li ko ci cat dem len ngeen mocc li ji ci chat lol lim lay wund moy chat dana japp ab sey sey man am jafeñ-jafeñ wala mu galan ko ci walum dom wala sax ci walum ngenté ngenté rek ngeen ngenté sen dom ngentine wo xamante ni lolou man nako juro sax chat japp li nga xam moy moy moy gune gi chat lu danger la lu graw la danger bi ci gëna yé moy day ray loolu yonent bi alayhi wax manam day fat nit day ray mana mën japp yobul alakhirah la yalla la musa lu graw la waaw kay mooy ni cat danger gi mu danger mooy day rey mhm. jàpp naa ne rey gi gën a oyof moo gën a oyof moo gën rey nga faatu benn yoon xam ni yow faatu nga mais cat bi la topp ngay dund ak moom di am ay jafe-jafe mooy yow saa yoo xëyee yaa ngi dee te yëgoo oh. booba gën a métti allahu akbar mu tudd am solo loo xam ne bu ñuy waxtaan ci cat mhm. yi nga xam ne da koy waral mhm. wala yi nga xamante ni barab la yoo xam ne njortu nañ ni cat mën na faa dugg. Mhm. te société yi war a bàyyi xel la. dëgg la xam nga chaque jour damay faral di wax ni diine bu la jàngalee nangam nga bàyyi ko dem ci aada donte diine waxu la aada gi banul. Mhm. problème ngay jural sa bopp. Mhm. xew yi ñu dugg ci xew yi comme ni moo ëpp. li jigéen ñi tuddee première attaque deuxième attaque troisième attaque wala yooyu. te léegi surtout. borode yi xew lafa yaa bi bii yi nga xam ne dem na ba ay 300000 wala yooyu. lafa yaa la lafa am na lafa <laughs> yaa. xam nañ ko boo rombee marché yi yàlla lafa yaa lafa yaa lafa yaa lafa yaa nag ay. xeetu yëre borode la. man de maa ngi koy doog a léegi dafa am yoo xam ne ñu ndaw ñoo koy sol ñi nga xam ne seen doole. mooy pël-pël bi waaw mu am na nag yu dem ba 300000 am na laadum yi am na am na yu dem ba 300000. maanaam met bi. waaw. mooy mooy 5 yaar yi. Mhm. yaa yaar yi comme wax yaar. waaw léegi yow xoolal nga sol premier attaque trois cent mille. Hmm. ma ne sii. la fa yàlla sol. la fa yàlla sol léegi yow yëgoo. yow moom yaa ngi daawu. jàpp ne yow fu mu toll nii rey nga gaynde gi te fekk hmm. xamoo ndax ca topp na la. loolu lim ñu war a bàyyiloo xel mooy ni góor ñi ci kër ñi jigéen ñi ñu fexe ba yenn xew yi ñu wàññi ko. ndax ni lim lay gàllankoor dafa bëri. da nga ci def xaalis bëgg mbégte. ñi teewoon moom am nañ mbégte. dëgg la mais bu ñu demee cat mën na la topp. ak sinab yi. Mhm. fu mu toll nii da nga gis jigéen joo xam ne day nduggi mu sinab li mu duggi cat mën na ko topp ba añ bi xam. dëgg la. mën na nekk. dëgg la nekk ci biir waañ wi naan ma xool nii laa def xool leen ma yaa ngi wane sa bopp. Mhm. ki lay xool am na koo xam ne mi ngi lay jéppi. Mhm. am na koo xam ne jéppi wala yaa ngi koy yéem fekk mi lay catu. ay mbir la yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la ci société bi. mais nag mal asaf yaakaar naa français malheureusement lay wax. mooy ni portable yi mu yàq dafa bëri mhm. ndax nii yow yaa ngi ci kër gi nii mhm. keneen gisu la mhm. waaye yow yaay fexe ba àdduna bi yëpp gis la te am na koo xam ne bëtam mu xool la rek cat la na koo xam ne làmmiñam mu wax rek cat la ngir ni yow sa image bu feeñee ku ci nekk day commentaire am na koo xam ne na muy xoolee day xool ci kaw ba ci suuf góor ak jigéen nag ñoo ci yem bu ñu koy wax du jigéen kese mais góor ñi sax dañuy seen di màcc ay tuñ wala yeneen di wane yooyu da doon mbir yoo xam ne mën na waral nit ki ca topp la te bu la toppee ngay dund jàpp ne affaire bi baax na te fekk ni baaxul wala mhm. musiba la moo tax ah. ni lu ñu lu ñu war a lu ñu war a bàyyi xel wolof ci lu muslu rek mhm. xamal ne loolu baaxul dëgg la wolof bokk na ci li muy wax mooy yal na la yàlla lafal cat mhm. na la cat seexlu dëgg la doo dégg ci li ñuy waxee mooy yal na yàlla musal ci njabar bëriwul duñ koy wax dëgg la bokkul suñu langage cat de moo gën a moo moo lay won ne dafa garaaw dafa doy waar lu ne mën na koo indi ci ay problème lu ne man gis naa koo xam ne dafa def concours ba réussir. Mhm. ba réussir ba nga xam ne dara desut lu dul ay affectation mhm. def na concours bi jàll def formation bi def lépp ma nga xam ne affectation rek moo des mu bind dimission mu bind démission bi mu bindee démission bi mu bindee lettre de démission ba déposé ko ba ñooñu daal di koy signé ak def yëpp ci la rendre doog a rendre compte ne moom da def na musiba. te fekk bay wéy na mbuus bay wéy na mbuus bi bi ci yaayam di wax ak man yàpp ne dañ koo njabar ak dañ koo yàq ak nangam sangam ma woo xale bi woo ko waxtaan ak moom ma ko dégloo laa xam ne kii moo saam boppam ci société bi te hmm? dafa bokk ci mbir ñu alxuraan digal hmm. yonent bi wax ko sallallahu sallam mooy nëbbal ci sa bopp yenn mbir yi hmm. am na xéwal yoo xam ne bu la ko yàlla defalee na ci lay musal ci cat mooy ngay nëbbatu ci yooyee xëy na loolu xudu xawaa'ijakum bil kitmaan loolu dinañ si ñëw xëy na ci kanam fa inna li kulli di ni'matin maxsuud maxsuud allahu akbar képp ku ne ci ay xéewal am na ku la ko yéenewul loolu naturel la waxuñu ngir kii mais képp ku ne ci situation yu favorable rek am na ku la yéenewul si xéewal yooyu yow da ngay am sa soxna sax am ku la yéenewul soxna si déet waay ah da ngay takk soxna am koo xam ne yéenewu la soxna si kum ko yéene ah xëy na boppam da ngay dëkk ci kër am ku la ko yéenewul da ngay am lëggéey am ku ko yéenewul da ngay jënd montre am ku la yéenewul montre bi da ngay sol yére am ku ko yéenewul loolu noonu la ñu yàlla bindee noonu lañ jaxasoowee loolu suñu borom wax na ko loolu moo soob nit ñi mu bindee leen noonu muy ay natt yu fi ne mu war ci nit ki nag mu defarwaat defaraat toogaayam parce que lu ci baree bare bari ci problème ñu ñoo koy teg suñu bopp de mooy ñun ni ñuy dunde ñooy encouragé cat jàpp na suñ façon dundin surtout suñ jamono ji nga xam ne jamono réseaux sociaux la ñëpp a bëgg a feeñ ñëpp bëgg a génn lépp imaam wax sànq gaa yi dañuy julli sax di filmer seen bopp julli rek julli di filmer seen bopp lekk di filmer sa soxna loo affaire bu garaaw ba damaa bokk ci groupe whatsapp mhm. boo xam ne suñ benn waay ci groupe bi noonu noonu rek lay def lépp lu ko soxna si toggal noo def mu filmer ko ne gaa yi gis ngeen tey soxna si fii la génn ak man daal di filmer wane xool daal di gone moo tax xool teg palaab si penc bi sëy bi tas na mook soxna si billaahi barki alxuraan billaahi sëy bi tas maanaam deful ak soxna si bu génnee sorti mook soxna si mu filmé gars yi tey damaa ànd ak madame gars yi di ñu kii ñu photo bu ko soxna si taajalee lekk mu commenté filme génne bu ko soxna si di sexal mu filmé génne photo dugal ci groupe bi jamono ji may wax seen sëy tas na ñoom ñaar benn doom la ñam hmm. yàlla xam nag lu ko tas léegi nan lañuy fagaro ci si cat ni ñuy fagaroo anam yi bari na waxuma fagaru fagaru fagaru waaw fagaru moy fexé ba dula dal mhm. def ay pexe ba ba waaw moy mucc ci dal non nan lañ ci muccé mhm. li ma wax sank bok na ci moy di baña feñal ci yow yi ñak yi nga xamne man na baña feñ mhm. di baña feñal ci yow yi nga xamne man na ñak ba man na ñak baña feñ kon exposé yaram ci mbedd mom kooku moom musiba la waxeetus ko parce que imam nettali na sànq benn xadis bu benn saxaaba te dee nañ la chat dal kon bul yaakaar sa bopp mukk ne yow mën ngaa sell sellaay buy tax cat man laa man laa bañ a dal dëgg la ndax ki nga xam ne yonent bi nettali na ko sànq imam jaar ci mhm. maanaam saxaaba la mhm. ku ñu catu mhm. ko xam ne liñ ko catoo mooy da doon sangu fi mu di sangu am ku romb kooku li mu li mu lëmasoo fi mu ne di sangu wanag wi fi mu ko li mu suturloo am lu ci naaw ndeysaan ka romb am lu mu gis ci yaram wi laa ilaaha illallah daa dina kii yaramam wi rafet na de hmm. daa dina ëw kii yaramam wi rafet na de loolu jur tooke bu garaaw ci làmmiñ wi yaram bi di def ay tupp tupp yu ñuul yaram bi tàmbalee soppeeku rafetaay bi yaram bi rafetoon tàmbalee def effet mbir mi tàmbalee changé tàmbalee soppeeku mbaa lii la ñuy wax dëmm xanaa loolu jàpp ko bëgg ko faat wa bu dëmm amee nag xeet woowu la moy amna ñoo xamne seen lamagne da am tooke il faut nit ñi nang lolu amna ñoo xamne lamagne làmmeñ yu garaaw lañ yor man gis na ko xamne dafa mënoon daw du ak nit te rawu la mhm. benn la ma mu ne mané ci kursu di kursu dama jekki jekki di daw ma sentir sama kiwis bi ci ginaaw mel lu désiré wu fi ci ginaaw booba la gëjë mëna raw nit hmm. te ñakul ku tok ca kaw tribune ba ne diw mi ak mëna a daw daa hmm. moo tax yonent bi ne la alayhi salatu wasalaam ne la soo gisee lu la yéem sa mbokkum jullit boo koy tudd na wax macha allah. Mhm. saa yow rafet nga de macha allah. Mhm. sa yére yi rafet na de macha allah. sa dàll yi rafet na de macha allah. saa yow mën ngaa jàng de macha allah gis nga. Mhm. maanaam lépp loo xamante ne nii na nañ la ko waxal macha allah. loolu dina musal nit ki ci li nga xam ne mooy moom mooy moom mooy cat kon di nëbbatu yenn mbir yi nga xam ne mënta feeñ. maanaam mën naa ñàkk bañ a feeñ nga koy bañ a feeñal bokk na ci leen ci mësa musal benn bés damay tukki mhm. ñu dem ba aéroport ñu jël vol dugg ci avion beeg yooyu yëpp ba nga xam ne avion mi ngi waaj a décoller benn di filmer boppam ci biir fi mu toog ci vol bi filmer boppam mu ngi wax ci vidéo bi gars yi fi mu ne maa ngi ci vol bi nii de fi mu ne maa ngi tokki nii de gis nga seentéer laa laal de fi ne maa ngi nii ci vol am na ñoo xam ne duggaguñ ci vol bi maa ngi naan sama xel kii mu ngi rey boppam te yëgu ko Uh-huh. te su paree daa war a publier loolu. Hmm. maanaam ci gàttal moom mënoon naa dem aéroport jël vol voyager fa muy voyager ba dox soxlaam ba ñibbisi waat ci réew mi te kenn du ko xam. te kenn du ko yëg. yu baree bare bare. Hmm. dañuy nekk Europe di dund ay problème yu metti hmm. am na si ñoom ñoo xam ne léegi léegi léeg man dañ may woo. léeg-léeg nit nekk Europe yu jékki-jékki nangu ay kayitam. mu yéeg ak a wàcc. mbaa mu liggéey xaalis bari yónnee ko ci réew mi ñu lekk ko. ak problème bi mu manti doon léegi la ñoom dañ ko fay dund mais. à 50 pour cent ñoom bokk nañ ci li créer seen i problème yi bopp parce que lu bari si ñoom dañuy dem ci place yi gën rafet ci Europe bi photo wu fa di ko di ko yónnee ci réew bi mbaa ñu koy publier loolu mën naa ñaax maanaam mën ngaa photo wu téye souvenir mhm. mbaa nga partagé ko sa yaay mhm. mbaa sa soxna mhm. mbaa sa xarit boo xam ne jàpp nga ne yéene na la jàmm waaye nga ko Facebook dañ wala YouTube dañ wala TikTok dañ wala sax di def wala ci groupe whatsapp yi nga xam ne ñu baree fay bokk ne mhm. nga daal di ko fi publier nga daal di ko fi publier te nekk ci place yoo xam ne ay nit a ngi fii bëgg faa dem mun nañ faa dem mhm. maanaam xeetu wanewu ku ko ci bàyyiwul doo mucc ci li nga xam ne mooy cat am na yaay yoo xam ne yit nag ñooy tax seeni doom ñu leen di catu mhm. waaw waaw am na yaay yoo xam ne bépp réussite bu seen doom am bu ñu demee ci mbootaay bi daal di koy waxtaane sama doom ji kay moom léegi moom mooy mooy signal joomaay ay ay kayitam sama doom ji jàll na concours nangam yëgu leen ko sama doom ji am na nangam ak nangam maanaam foo dem su ma sànq nee naa la yaay dana catu doom mhm. mais ci anam boobu la mhm. maanaam sa yaay noppiwul ci say réussite yow du noppiwu ci en tant que moom de mais day dem di ko waxee te fa mu koy waxee ci ay moromam ci ay xaritam te yaay bokk na ci ni ko ni maanaam jigéen dafa bokk ci li mu juree mooy jigéen buggul am doom ñu raw doom ji jigéen ñëpp kenn ku nekk boo sañoon sa doom mooy raw yeneen doom yi sa doom yi doog doog ci doog ci topp mhm. kon ngir mën a mucc si cat bokk na ci ngay nëbbatu ñaareel ba mooy ngay def ay askar am na ay ñaan yoo xam ne boo koy jëfandikoo yàlla dana la musal cat bokk ci laa hawla wala quwwata illa billah mm-hmm. bokk na ci xasbunallahu wa ni'mal wakil surtout boobu xasbunallahu mm-hmm. wa ni'mal wakil mm-hmm. ñaan la wérd la zikr la boo xam ne képp ku bëri loo koy wax di ko def yàlla mën na la musal ci cat laa hawla wala quwwata illa billah xasbunallahu wa ni'mal wakil ñaari ñaari zikr ñaari wérd yooyu di ko saxoo di ko wax lu bëri di ko jëfandikoo ci yu bare bare bari bokk na ci la ci mënu a fi may jéxalé moy bo bëggé ar sa bop bo bëggé ar sa bop yow ci walum chat wala nga bëgg ar sa matériel ci walum chat yonent bi alayhi salatu wassalam néna képp koo xamante ni jàkkaarloo nga ak say xéewali bopp yi la yàlla defal nga ne nga ne macha allah la quwwata la hawla wala quwwata illa billah macha allah la hawla wala quwwata illa billah ñaari baat macha allah laa la hawla wala quwwata illa billah boo demee ci suratul kahfi ñaari xarit yooyu nga xam ne kenn ki daa amoon alal lool kenn ki ñàkk ki ñàkk daal di seet ki am alal lool ki am alal lool daal di présenté xaritam bi ne ko gis nga alal ji ni mu baree gis nga sama or yi sama wurus yi sama tool yi gis nga ni mu baree man dey dootuma ñàkk mukk ci àdduna mm-hmm. xaritam ba ne ko lu teewoon boo gisee sa alal ba mu yéem la nga ma sha allah la hawla wala quwwata illa billah bo waxe lol yalla dina la musal te barkel li nga xamne moy alal ji yalla ci alquran mais koku dana du ko wax darul moy wax lol alal ji mako mom mako liggey sama ñak bop la ñak yang dara yalla natt ko mu don ki gëna ñak ci rew momé yonent bi dal di wax ne kep ko xamne ne lo nga sa alal sa Otto, sa kër xewal yo xamne yalla defal na la ko nga bëgg ko conserver bu ko téye del bëri loy wax allah la hawla wala quwata illa billah xanaa loolu moo tax gars yi di ko bind ci oto yi waaw gis naa léegi ñu koy bind ci ay kër ak ci ay oto yi allahul mustaan xayri macha allah docteur waaw imaam bokk na ci liy aar nit ki mhm. wala nit boppam ci cat mhm. mooy fu mu nay nay jàng mhm. qul aawzu bi rabbil falaq qul aawzu bi rabbin naas beneen bi léeg-léeg nit ki ne dama dañ maa catu te fekk moo catu boppam nit mën naa catu boppam ah ndax ni sax ci xadis yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam di wax ni balaa ñu ngi koy wekk ci làmmiñ mo nek ki la tuddu tudd ci làmmiñam lolu mën nako dab léeg nga gis ko xamanteni day am lu muy publier ne ana noni yi noni day day am ah toroxal noni yow mën nga solo comme ni nga solo ni kenn ben way solo comme ni nga solo ni ba jekk macha allah ne ana noni moy ni mënu lañ ci man dara loolu lay signifié li mu wax. Mhm. te fekk mi ngi woo ay noonam pour ñu jotu ko kooku moo jotu boppam. Mhm. loolu loolu lu mat lu mat lu mat a bàyyi xel la. Mhm. léeg-léeg yow mën nga toll foo xam ne ci xam-xam wala ci mën man ci wàllum liggéey nga jàpp ne yow amul lu mun a taxaw sa kanam. non man fu ma déposé jàll. ay bu keneen déggee te ke mën na doon sa xarit sax. ndax ni cat mën na jugee ci ki la gën a sopp man na nekk. kon loolu lu mat a bàyyi xel la nit ki bu fekkee mi ngi def asgaar yi na fexe ba tey liñ koy catoo ba mu ko tudd ci làmmiñam ndax mën na ko tudd suñu borom subhanahu wa taala jaaree foofu dogal ko kon loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la comme asgar yi mu tudd nii boole ko qul a'udhu bi bi falaq am na beneen ñaan boo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon mooy ne a'udhu bi kalimatillahi tammati wa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma yii nii boo ko nekk kii saxo suñu borom subhanahu wa taala mën na koo musal si cat waaw macha allah léegi imam ku cat dal ba yii yëpp nga tudd musiba yooyu yëpp mu koy sentir si yaramam lu mu fëgg mu tëju lu mu yaakaar mu tas ku ko dikk def leneen concours bu mu def mar d'état liggéeyam du avancé day dellu ginnaaw rek yaramam day feebar rek yaram bi léeg-léeg day dis gan léeg-léeg mu am ay jafe-jafe léegi kooku ak ku ko mel naka lay fajoo ci cat googu bu ñu fàtte tamit xam wax ne cat du jàpp jëmmu doomu aadama kese. du jàpp jëmmi doomu aadama. déedéet du kese quoi. dana jàpp oto. waaw ni ma la ko waxee sànq. dana jàpp kër. Mhm. dana jàpp machine. Mhm. dana jàpp lu nekk. dana mhm. jàpp téléphone. mën na jàpp lu ne mën na jàpp sax ay projet. projet bi dañ koo catoo yu ni mel loolu yëpp mën na ne. Euh, léegi nag ci différence yi nga xam ne moom la cat am. manam cat xajam ay xajam parce que nee la ñetti xaj la cat mm-hmm. catu beut chat lamagne catu xol mm-hmm. ñetti xaj la uh-huh. bi ci gëna garaw moy mooy xol mm-hmm. catu lamagne sa yaay ji la bëgg mëna la ko defal chat lamagne ki commenté ci say mbir xeyna na catu la catu la tax ko won jóg waye xeyna lamagne mo soxor mom tudd gi muy tudd say mbir yow cat man la caa jappé ki la catoo ci beut koku day yému ci yow da xool xool yéemu tudd na aay bi sànq am na ay nit yu yor bët yu soxor yoo xam ne duñ la xool yenn xooti xool yi du dul na cat mën a la caa jàpp ki ci ki nga xam ne nag moo ko tey maanaam bu la catoo moo ko tey mooy ki nga xam ne dalaa soxore dalaa iñaane yii yëpp bokkul ak niñ koy fajee bu ci nekk naka lañuy ñuy xamee nag ne yow ndax catu bët moo la jàpp mbaa ndax catu làmmiñ moo la jàpp Baca tu eh, xol mo la japp mhm. yoy benen benen dimension la mhm. dina la jox ñetti mbir yo xamne ku ca dal man nga cee fajj sa bop ñetti mbir insha allah acha bismillah yo xamne kep ko xamne yek nga ne ca dal na la mhm. te sax bu la neexee bul xaar ca di dal bangku yek koy yek bu la neexee man nga ko jëfëndiko mu jëm ci walum fagaru bu la dalé man nga faju ca ni mu ak ni mu danger bokk na ci mën yërmande yàlla noonu la neexee faj noonu la neexee dañ. moom cat moom cat. waaye boo ko fajee day ñëwaat. mën na bañ a ñëwaat. Ah. mën na mën na bañ a ñëwaat. Mhm. loolu mbirum yàlla la. Mhm. mais li tax mu bëgg a baaxe lii. Mhm. mooy dafa am ñoo xam ne dañ ci sonal nit ñi. da ngay gis koo xam ne lu nekk lay daj ngir dem ci ab fajkatu cat jaru ko jaru fay xaasu bari. ay cent mille ak deux cent mille ak cinquante mille jaru ko. ni mu danger ak ni mu garaawee sans borom yàlla noonu la jàppandile li ci nit mën a muccee. waaw bi ci jiitu. Mhm. dañ jàpp baax lii nag du ma wax bu ma ko waxee du ma ko waxaat. ati bismillah. <laughs> parce que li li ko waral mooy léeg-léeg dama koy def ay enregistrement vidéo nit ñi di maanaam donc ba pare ñu lay woo yow. Mhm. dëgg ñu lay woo ñun amuñ jot wax dëgg yàlla. di jël ay appel tout le temps. dëgg la <laughs> occasion bi daal. Mhm. ku rëcc. di nga xooli leneen. te waa RTS ñu ñoo ko am macha allah waaw waaw RTS ñoo exclusivité. exclusivité. ayca bismillah <laughs> xayran euh, bi si jiitu imam mhm. képp koo xam ne bépp yaay joo xam ne bëgg nga say doom cat mucc si ñoom. Mhm. dama jóg na ayca bismillah képp koo xam ne jigéen nga. nga am say doom. ñuy jàng. moo xam mag lañ wala xale. nga bëgg say doom cat du leen mën a dal du leen mën a laal. dem mhm. sopp na yàlla. del jàpp yow mi yaay ji. di leen ko jox ñu koy sangoo. del jàpp comme ni ngay jullee comme ni ngay jullee. jàpp mel ni nañ la indil nañ la indil benn paan tegal la ko. Mhm. jël satala jox la. Mhm. yaay ji di jàpp. Mhm. raxas loxo yi ñetti yoon muy rogalaat ci paan bi roxo yi ñetti yoon. sarax bakkan bi gémmiñ gi yàbbi ci paan bi ñetti yoon. sëlmu ci si paan bi ñetti yoon raxas tànk yi ci paan bi ñetti yoon. ndox moom mu sangoo ko. xale yi di ko sangoo xale yi di ko sangoo. yow nag yow mi ko def. maa ngi ñëw ci loolu. bisimilah. <laughs> lii. képp ko sa yaay di dund profité balaa mooy génn àdduna allahu akbar képp ku sa yaay di dund boo bëggee aaru ci cat mhm. bi ci gën a efficace bokk na ci lii ma wax mooy demal ci sa yaay na jàpp sottil ko mu jàpp bu paree jëlal njàppit mi sangoo ko yaay wala papa non yaay kese parce que nee naa la papa ay mbiram leerul <laughs> waaw mais ku amul yaayam faatu nag sëñ bi ah nga nga ñëw ci yeneen xam nga ñett laa lay jox aja bismillah ñett secret laa lay jox yow jàppagum ci benn bi ku yaayam génn àdduna nga dem jàpp ci yeneen ñaari bàyyi bokkul moom bàyyi bokkul bàyyi ay mbiram leerul bàyyi moom da ngay judd rek ñu ne la sa baay <laughs> mais wóorul kenn ku dul yàlla yàlla rek xam mais yaay moom sëñ bi dafa daf ñu wóor ne kii mooy sa yaay allahu akbar benn ñaareel ba mooy hmm. ki la gën a yéene jàmm mooy sa yaay sa yaay du la soxore mukk ci àdduna mm-hmm. sa yaay mën nga koo bañ a defal dara bal mën nga sax di ko toroxal terewul mu lay yéene jàmm mm-hmm. mbëggeel bi gën a dëggu ci mbëggeel li gën a sincère mooy mbëggeelu yaay ci doom mbëggeel yi ci àdduna bi yëpp intérêt mm. ba mu des mbëggeelu yaay ci doom sa baay bu la bëggee li muy def ci yow di la fayal sa jàng ak yooyu yëpp moo ngi xaar bés bu tëlee mm. nga jël kër gi en charge moo tax si mu tëlee jëloo kër gi en charge day geer ak yow day xeex ak yow bàyyi bu la yàlla nattoo nga dëng juba di di troubler jël yoon wu bon day démissionné wu léegi buy wax sa yaay danaa sa doom ci dëgg la soo moytu sax mu dàq la kër gi mais sa yaay ngay loo bon bon bon bon bon bon fépp fu mu xam ab sëriñ ak fajkat bu découragé day yenu yóbbu dem di jéemi di dem amin mbeugel bu sincère bobu bu deug bobu nek ci yaay te benen ndirign pour bañ guddal benen ndirign mo am ci ndoxu njapit yonent bi da ka ran sanguloo ko xamni njap nañ ne mom mo la ciatu hmm. alayhi salaatu wasalaam moo tax na ci efficace sa dom yi bo beugé ken di len japp ci ciat hmm. del japp di len ko sangé wala yow mi nga xamné magum jëm nga jappalal sa yaay ci ndox mi nga sangu loolu mooy benn. ñaareel ba mooy xasu xay. xasum xay xasum xay. ak bari Cees. 200 lay jar waaw mooy garabu Cees yi wax nga dëgg Cees yi. xasum xay. le maire le maire Babacar Diop Baye boo nga waajal ñu ñoo ngi ñëw foofu pour war si pour war si xasum xay ah. mais moom ba service d'hygiène du la du la tere seen xay yooyu ñoom dañ kaa fonk de. ayca bismillah koy jaay fii ñu koy jaay fii ci réew mi. Mhm. takk bi yaakaar naa deux ans la seeru mm-hmm. Mm-hmm. am wut ci benn takk. est-ce que boobu ak bi nekk ci garab gi benn la. non boo ko mënee dindi ci garab gi moo gën. moo gën boo mënee dem dindi ko ci garab gi tooy tooy bi noonu. Mm-hmm. moo gën. waaye boo mënul am loolu jàppal ci takk yii. loo ci mën a am rek. baxal ko ak 3 litres ndox. da koy baxal gis nga imaam li li ma lay wax nii. gaa yaa ngi ciy am xaalis bari de. man sax lu tax may wax lii sax man est-ce que du ma ko bàyyi. déedéet <laughs> waxal rek ko bàyyi. bismillah bismillah bismillah yow sa borom ngay liggéeyal quoi. li ma lay wax ni gaay ci am xaas bari. waaw bismillah agaler rek imam agaler rek agaler rek yow yalla mo lay fay. in ajriya illa ala allah. ala kullin. Mhm. so mané am xasu xay. Mhm. tak bi baxal ko ak 3 litres. Mhm. boo ko baxalee ndox mi day xonq. cur. verser ci encore yenen 2 litres. jang ci. سورة ملك موي سورة تبارك تبارك الذي بيده الملك, الملك. وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بصار بجيخ soo ko mënul jàng wala na nga bind ko effectivement mën na ne mën nga jël papier bind saar bi wala ñu bindal la ko saar bi nga xooj ko ci xooj ko ci ndox moomu nga koy sangoo pendant cinq jours bu ëppee baax na bu ëppee cinq jours baax na bu gënee yées cinq jours baax na. Mhm. en tout cas sangool ndox moomu. Mhm. te bu ko sangoo ci douche. déedéet bu ko sangoo ci douche wutal fu sell sangoo ko fa. Mhm. lii sangat la. muy ñaareelu sangat. pour yàlla mu musal la ci cat bu la dalee it day génn ci kàttanu yàlla. waaw tooke buy dund ci yaram la. tooke la buy dund ci yaram. boo xamante ne nii euh, euh, euh, xasum xay day raxas tooke bi ci saw yaram mu génn bu soobee yàlla. waaw akbar muy ñaar. ñetteel bi mooy li nga xamante ne nii mooy euh, euh, waa kañ boo jëlee ndox ndox mu manti doon mhm. mu manti doon baax na nga jël mhm. ko nga jàng ci qul huwallahu ahad mhm. ñetti yoon qul rabbil falaq ñetti yoon ak qul rabbin naas ñetti yoon nga jàng ko si nga wut huile d'olive huile d'olive nga jang ci même sar yi ma wax nii mhm. ci huile bi mhm. sango ndox mi jël huile bi daf ko kay ndox mi ben yon nga koy sangoo mhm. huile bi nga def ko diwookaay di di di ko diwo nga koy wu diko masé wu sa yaram surtout booy tëdd sooba yalla chat aussi ci yow dara allahu akbar ndoxu zam-zam aussi bokk na ci li musul ci chat diko nan diko sango diko sango diko diwo sangoo di ko diwoo comme saafara quoi bo amé bouteille bu toll ni bi seerul boo ko diko diw sa yaram bi ni diko la laal comme saafara mhm. bokku na ci di lay musal ci cat manam likoy fajj faj di dindi ci yow ba mu set ma sha wicc allah yi dal ma fi tudd mhm. yenn la yi nga xamni ku ne man nako defal bopam deug la te efficacité bu leer bu wér ak ay confirmation yu wér yo xam am nañ ko deug nga moy wone ne li efficace na trop pour kep ko jëfëndiko yalla musal la ci cat allah li kado la buñ maye jërëjëf. jërëjëf docteur kado ngi noonu. waaw xanaa ñu jël kado bi rek ndax ni loo am solo la ci kado yi mu wax ni. ci wàllum cet. yi mhm. mu tuddee wàllum njàpp. ngay gallax ndiko du sotti mën naam kay seetaan dane te mu ne loolu salte na di mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale woon mhm. te am na leen lu mu ca yokk nga ndoxum njàppin moom ma la wax day faj dimension cat yëpp parce que lépp luy cër yi catu doomu aadama mhm. da nga koy raxas ba sooy sooy jàpp dëgg la kon nel bismillah loolu moo tax yonent bi sallallahu ko ñu tuddoon sànq mhm. bi ko cat dafa woo ki nga xam ne moom lañ yaakaar ni moo ko catu mhm. mu raxasloo ko ay cëram comme jàpp mais raxas na li nga xam ne moo nekk ci suuf tubayam ñu sangee ko loolu waaw pour bay bàyyiloo xel ñi nga xam ne mën nañ jàpp ne gallax ndiko après nga sangoo ko mën nga ko xaw a dëgg la am na lu gën a pire loolu dëgg la ngir nii ci cër yooyu cat da koy jàpp. dëgg la kon nii lu mat lu mat a bàyyi xel la. Mm-hmm. Euh, mbir la woo xam ne alxuraan la. Mm-hmm. alxuraan yi neen. Mm-hmm. ñu jox la ko kado doo ci fay dara. nga jël ko yaakaar naa moo gën nga dem ci leen loo xam ne wóorul. wallaay ndeysaan garanteegul. wallaay ndeysaan kon ni man loolu rek laa ci yokk amul leen lu ma ci yokk ndax nii wax na wax na lépp daal. waaw li may tàggatoo mooy euh, di leen jaajëfal di jaajëfal sénégalais yi parce que su ma fi jaaree aussi jaaraat fi jaaraat fi. jàpp naa ne sénégalais yi la. dëgg la. wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal jëfal baax a baax. ñu ngi sax pour ñu ubbi benn cerveau vocal. parce que dañoo bëgg émission bi xam naa loolu mm-hmm. directeur RTS na ko dégg incha allah pour ñu am mm-hmm. benn cerveau vocal boo xam ne pour émission bi la ñu koy def en direct su ko defee sénégalais yi di woote di exposer seen i problème ak seen jafe-jafe ñun li ñu yitteel mm-hmm. mooy lu jëriñ nit ñi man dama mos a contre kuy business problème mu nit ñi dëgg yow du du ma wax mais yow am na loo xam ci man. dëgg la man dama ma dama jàpp ne problème mu doomi aadama warul nekk lu nit di business. déedéet. warul nekk lu nit di business. dëgg te dafa bëri Sénégal. wallaay dëgg la. yii may waxtaanee fii am na ko xam ne boo ko doon fay million du ko fi wax. ndeysaan man bu ma defoon benn enregistrement vidéo léegi. Mhm. ne man naa fajcat. Mhm. joxe quelques explication vidéo bi tas. man mhm. naa recevoir ci benn une heure temps vingt appel qui ont demandé la solution. 20, 20 appels, quelqu'un qui a fait 100 000 francs, 1 million. Là. Là. Voilà, voilà, 2 millions ça 1 million. 1 million. Là. 2 millions là, 2 millions. 2 millions là. Mm -hmm. Mais moi, je suis ligne, je suis dit que le problème est que les gens profitent de régler les problèmes. C'est ce que je fais dans le un combat, c'est ce que je fais. Sur les réseaux sociaux, je continue sur les réseaux sociaux, je fais ce que je fais. C'est ce que je fais. ngeen may woo di ma invité nga invité waat man may ñëw di wax parce que opportunité la occasion la ku yor xam-xam mhm. foo ko waxee ngay bëgg kon yu mel ni bu ñu ko ubbilee dañ ciy sawar di ci ñëw mhm. kon encore une fois ñu ngi jaajëfal waa RTS mhm. di jaajëfal waa réew mi waa bitim réew loolu laa amoon lu may wax di ñaanal ñëpp jàmm salaamaaleykum docteur lan ngay tàggatoo waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu Cheikh Ibrahim di ko jaajëfal ci pare googu mu pare pour joxe ngir ne yonent bi sallallahu wa sallam wax na ni ndax jëmbat la mi ngi jëmbat mhm. yonent bi wa sallam wax na ci xadis ne nit ki bu génnee àdduna mhm. ñett mooy des mhm. lépp loo xamante ni defoon na ko day arrêté ba mu des ñett bokk na ci xam-xam boo xam ne da ko koo tasaare woon nit ñi di ko jariñoo nit ñi di ko jariñoo te fekk mënoon nga ciy jar ci leen pare googu mu pare nag pour tasaare xam-xam bi te la yàlla rek tax yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala jàppale ci loolu te yàlla fay ko ko te it képp koo xam ne seetaan nga émission bi ak ya ko jiitu nga amoon ay problème mën cee jëriñu jàpp nga ni cat moo la jàpp mhm. wala gis nga diw mhm. cat a ko jàpp mhm. ragal naa ne am solution boo xam ne joxe nañ ko fi boo ko jëlee jëfandikoo ko suñu borom man na ci def tawfiq di ñaan yalla nak mu musal ñun ñëpp ci chat mo xam ñun ñu nekk ci plateau avec cameraman yek ak ñi sétane ñepp rek yalla musal ñu cat ya. ya. ya. wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa jërëjëf eh, RTS jërëjëf eh, docteur Mouhamed Niang consultant jërëjëf suñu gan gi Cheikh Ibrahim wax deug yalla mention spéciale jërëjëf suñu mbokk yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci émission bi ba ngeen amé ko ci anim gu lèr gi anim gu fess gi muy cameraman yek technicien yek ñepp ñu ngi santat yàlla bu baax a baax a baax di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa di jox mention spécial wa RTS di la ñaanal borom bi subhanahu wa taala tawfiq kon mbokk yi àndoon ak ñun fii si wareef julit fii la ñuy tegaat suñu baaraam ba beneen émission di sant yàlla di leen sant di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu def si réew mi jàmm wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa